crois kan moo mënoon imaginer en plein 2021 que li naroon a dëggal ñaaw njort ba Jamra amoon ci Miss Sénégal ak Miss Jongoma en 98 que ki ko naroon a dëggal mooy ab Miss bu ñu fal mu remporter la première couronne ci édition 2020 di soxna Fatim Dione ku ko mënoon a xalaat parce que bu fekkoon benn waa Jamra moo jóg yëkkatiwaat wax ji dañ na woo waa Jamra bu ñu tànqal waay waaye Miss yi seen bopp ñoo wax mooy li tubaab di wax naan l'aveu est la reine des preuves Barmane nettali ci làmmiñu borom la daxe alors boo leen gisee nag ñun ñu gërëm soxna Fatim Dione miis le parce que dafa biiral ca kaw lu bari lu miis yi doon xumtoo di wéet ak seen naqar seen gàcce ak seen tiitaange ñooñu ñu koon wax fenn kii fas fitam nag looloo waral Jamra gërëm ko donte le gërëmuñu la mu nekkee woon di affaire Miss hmm. la mu wax na ñun ñëpp ko dégg ñëpp ko dégg détaillé na nañu leen lalale ay ndëgg sërëx ba dugal leen ci système Miss yi détaillé na nañ leen lalale ay ndëgg sërëx ba bu compétition jeexee ñu yóbbu leen ci ay hôtel ay naar yu saay-saay dagg billet Dubaï ñëw fii ay homme d'affaires ak ay autorités de l'État yu ñàkk jom di leen fa fekk di leen def des propositions indécentes et puis lan mooy ndeyu compétition Miss jeex ba noppi ba ñu xam kan mooy première couronne kuy première dauphine deuxième dauphine ku nekk xam sa notation dara des si lu neexal leen wala may leen paas ñu dem lan mooy ndeyu nga foog leen orienté leen vers un hôtel pour faire quoi c'est suspect alors ginnaaw yi y a eu des témoignages de Miss des témoignages concordants ñii naan kenn ci encadreur yi du comité Miss Sénégal naan ko waaye looy wut ci couloir bi sa moroom diw rejoindre na autorité sangam dans sa chambre d'hôtel sa moroom diw mu nga nii eh, ànd ak autorité sangam mu ngi koy tenir compagnie yow nga toog fii di tiitaru rek donc soxna Fatim jon looloo ko sowe dëgër boppam ak ñaaw njortam alors mujj gi ñu bërgal ko mu dem ci chambre bu benn moromam nee na fa la fanaan waaye comme que moromam yi avoué nañu ne ces prétendues autorité surtout naar yi am na luñ leen doon may naan leen dafa baax et cetera et qui s'est avéré être des barbituriques mooy li xale yi di wax pion kon nag moom kon nag moom kenn xamul ci circonstance lañ ko sàkkoo ba mu jëlee ci ëmb est-ce que dañ ko drogué est-ce que est-ce que est-ce en tout cas niiruwul woon ko ànd ak sagoom d'après témoignage bi mu joxe. mu ngi nii am ti doom bu am juróom juróomi weer ba léegi kenn xamul baayam li tax ma ne dañ ko gërëm parce que ba mu waxee rek dafa def benn déclic miss yëpp am fit miss Tamba wax na miss Matam wax na miss Kolda wax na miss Saint-Louis wax na te miss yi xamante parce que édition yi bokkul. am na ñoo xam ne ci concours édition 2017 2016 2019 2020 kon possibilité complot mënu cene kon c'est pas un hasard ñoom ñëpp ñu am de propos concordants li ci gën a yéene nag mooy miisu Saint-Louis bi te loolu moo indi sama convocation dikk moo waxal ci làmmiñu boppam kenn saxaru ko suukar kenn saxaru ko lem que un ministre de Macky Sall. moo ko ëmbal ba mu am ci ay seex voilà ce que j'ai léegi gars yi jël euh, wax ji le lobby qui voulait freiner Jamra dans le combat contre Miss Sénégal ak Miss Jongoma ñu jël wax ji def lu ñuy wax deep fake li ñuy def Abdou Karim Ba euh, firi gént ñu daal di jël sama wax dindi le mot ministre jël ñaari tranche vidéo yi collé ko boo ko dégloo qu'est-ce que ça donne eh bien Macky moo ëmbal miis bi rek état bi jóg daal kii day alors laaw waaw la yaakaaroon te doon ka ñaan yàlla am hmm. Hmm. Hmm. waaye miis Matam benn ci miss ministre président Macky Sall moo ko ëmbal. waaw maa ngi koy teg ci micro yi ngeen déggaat ko lu gàtt la ça fait à vingt six minutes. kon la ka dal métti na. Hmm. alors bu loolu amee nag. Hmm. la ñu yaakaaroon te doon ka yàlla am na. Hmm. mooy li tubaab di wax naan lee langues commencent à se délier. xam nga bu doon moom rek moo wax. benn waay tàng xol la dafa am lu ko metti rek. waaye Miss Matam wax na. Miss Saint-Louis wax na. ak yeneen i miss nañ juróomi miis te am na kenn ci miss yi nee na benn ministre président Macky Sall moo ko ëmbal. loolu laa wax xool la léegi nag bi ko jëlee travaillé ko ce que ça ko travaillé lii la joxe. la ñu yaakaaroon te doon ka ñaan yàlla am na mooy li tubaab di wax naan les langues commence à se délier xam nga bu doon moom rek moo wax benn waaye tàng xol la dafa am lu ko metti rek. waaye Miss Matam wax na Miss Saint-Louis wax na ak yeneen i Miss mat nañ juróomi Miss te am na kenn président Macky Sall moo ko ëmbal. voilà dégg ngeen de loolu la gars yi liggéey te moom il a été tellement maladroit man bu ñu ma ko joxoon danaa ko ko liggéeyal ba rupture boobu am du am <laughs> parce que boo ko dégloo ak loo cuune cuune ci wàllu audition audiovisuelle di nga xam ne am na coupure bi ñuy rocc le mot ministre. Alors, je vous précise tout de suite, et je l'en remercie, le procureur Serigne Bassirou Gueye moo auto-saisiru bi vidéo bi commencé circuler ci réseaux sociaux yi man porté wu ma woon bien que liñ ma def neexuma waaye c'est le procureur Serigne Bassirou Gueye moo auto-saisiru waa DIC ñoo ma ko wax ba mu auto-saisiré dafa imputer dossier bi à la direction de la police judiciaire ne leen na ngeen ma leeral kii wax ci euh, vidéo bi entendre ko ba xam lu mu ci xam après ñun ñu xam euh, la marche à suivre alors ba ko police judiciaire jotee jotee ndigal boobu ci procureur jébbal ko à la euh, division des investigations criminelles parce que c'est un démembrement de la police judiciaire division des investigations criminelles jël ko jébbal ko Moulay euh, euh, Moulay Nakati c'est le c'est le patron de la BAG le, le bureau des des affaires générales alors kooku ba mu ko jotee nag kooku moom ma convoqué bi ma convoqué nag Moulay Diko c'est le patron de la BAG la brigade des affaires générales mu convoqué ma wax ma li ko procureur wax nee nañ ma ci déglu ba xam lu ma ci xam waaye nag comme que du ma cuune waa Jamra kenn du cuune ànd sama jikko du ñu cuune ba may dem dama gànnaayoo vidéo yi nii ma def ak yéen nii teg leen original bi ma tegal leen bi ñuy bi bi ñuy bi ñuy trafiqué ñoom ci seen bopp ñoo mujj taf seen gémmiñ di ree seen c'est mal fait alors ñu daal di ma entendre de 10 heures 30 ba 13 heures 30 sama avocat xaw a tardé man maa jël avance pour qu'on gagne du temps. après mu daal di ñëw maître Moussa Sarr rejoindre ñu parce que am naa droit de ne pas parler tant que mon avocat n'est pas là. waaye ma ne daal comme que je n'ai rien à cacher. j'ai commencé à parler après suñu avocat ñëw. ñoom ñu daal di jot ñaari version ma yónnee leen ko ñoom inspecteur yëpp yónnee naa ko Moulay Diko le patron de la euh, euh, euh, la BAG de la brigade des affaires générales. le commissaire euh, mbay Diouf bu dikk jot na ko ñoom ñëpp jot na ñaari version lu waay cuune cuune tu sens nettement que c'est une manipulation grotesque mm. et maladroite à partir de ce moment là nag euh, euh def na tey ci suba maa ngi leen ko yëgal réquisition dal di saisir la la DSC c'est la division spéciale de la cybercriminalité foofu moom Jamra du fa gan. Hmm. parce que série yu bon yëpp yóbbu nañ fa surtout euh, euh, waa cirque noir man mii maa leen fa yóbbu ba ñu ne leen ràpp ci kaso bi 17 jour de prison parce que pornographie lañu doon def naan waaw lii procureur mënu ci dara parce que génnul ci tele yi ci euh, kii yi la génn réseaux sociaux yi juum nañu parce que la loi 2002 18 Euh, de juillet 1900 euh, de de juillet 2018 may na procureur ak la division spéciale de la cybercriminalité ku violer les textes du Sénégal en matière de préservation des mœurs en matière de la sauvegarde de la santé mentale et morale des enfants ak di dégrader l'image de la femme ak support boo ko mënti defee muy télé yi wala des supports euh, audiovisuels Euh, internationaux comme euh, euh, Instagram YouTube la loi te tombe dessus looloo tax ñooñu ñu jàpp leen tëj leen ci kaso bi waa cirque noir ñi leen jàppoon nag miin naa leen boobu laa leen miinoon ñuy jàmbaar le commissaire Ali Kandé kon dossier ba mu nga ca ñoom dina ñu jàpp saay-saay bi nag parce que ñu ngi def benn système pour remonter à la source ba xam première vidéo ba ñu trafiqué ku ko jox ku ko def saay-saay ba mu ngi ne xumma nag nan ñaw waa Jamra yi tey te xam nga moom lu mu bëggoon ñu ngàdd dañu avec l' article quatre vingt du code pénal du xam ngeen article quatre vingt du offense au chef de loolu la xam nga waxloo na ma lu garaaw ci Macky Sall c' est à ça qu' ils s' attendent léegi sa s' est retourné contre eux la DIC est à leur trousse et la division spéciale de la cybercriminalité mu leen di rëbb. maa ngi leen di gërëm parce que autorité policières yooyu parce que ils ont accéléré la la chose tey parce que ñoom xam nañu ne lii du wax Jamra Jamra di dox tànku jàmm fu ñu toll ñu ngi ci médiation yi ñu ngi ci dégg euh, médiation sociale di jàppale liggéeykat qui sont victimes d'injustice Jamra dina dem di wax euh, ces ces absurdités là alors donc en définitive euh, sàkku nañu ci procureur en attendant yoon jeexal liggéeyam mu jël la mesure conservatoire suivante consistant à suspendre à confisquer la licence bi ñu jox soxna Amina Badiane bu euh, Miss Sénégal.